teg sànq bëgg naa ci indi ñaari affaire yu gaaw benn bi man la ne man ndax dama foogoon ne booy booy ma listeel point yi di ma ci defal benn tamit mooy à trois mois des élections ou bien moins de trois mois des élections ñu sampat beneen euh, bureau bu Sénat bu jur coow lu bëri ñi naan légal na ñi naan légalul mais à trois mois des élections bureau boobu ndax dina pare techniquement pour gérer yenn dossiers yi. waxoo kenn waxul ne légalul. ah non du côté de l'opposition du côté des observateurs du côté de la société civile les Ndiaga Sylla et autres les ñoom def nañu sax ne njaga njaga sama rakk la Ndiaga sama rakk la euh, ku ma wóolu la man wóolu naa ko kay li wax kon nangu nga ko bokk na ci ñi nga xam ne dama leen di woo di leen consulter ci point de droit bu ma wóorul bu fekkee wóoruma man dama koy woo ma ni ah loo xalaat ci lii dama koy woo barki démb rek wax woo naa ko il est brillant moom nee na jaarul yoon. man naa jum <laughs> njëkk mën naa jum di. ah mais li ñu bind ci texte yi ñu ne ko ko apolitique déjà war faa nekk. waaw te déjà nee nañ am na ñoo xam ne ñu nga fa woon seen mandat jeexul ñu génne leen. ku ñu juñ jiiñ koo xam ne am na koo xam ne dañ ko ci jiñ. ca ba sama tante la. wala Fatou Kiné Diop. waaw sama tante la. Fatou Kiné Diop sa tante la. direct dañ koo ji te du dëgg. mais ñeneen ñi nag. ñeneen ñi xamuma leen pour juger. que Cheikh Awa wax dëgg yàlla mais xam naa au moins. kenn koo xam ne lu ñu ko waxul du dëgg. muy Diop sa ah, tante léegi léegi. Euh, président de la république dafa am pouvoir de nomination constitution moo ko teg loolu nangu nañ ko léegi lu nuy wax hiérarchie de normes dafa am norme constitutionnelle am norme conventionnelle mooy bu ñuy wax ay waa euh, ak yooyu norme yooyu dafay mujj nekk norme constitutionnelle pourquoi parce que sunu constitution moo wax ne mën naa méngoo méngoo na ak sunu charte réew ñu promulguer ko adopté ko après nga am norme norme législative norme réglementaire doogaa ñëw mesure réglementaire nag dafa am fu nu koy xeexee attaqué pour daan ko moo tax ñoom jaga ne dañu koy daan ah oui léegi nag man waxtaan naa njaga wax naa ko li ma d'accord ak li ma d'accordu waaye ñële seen mandat dafa jeex ay attaques ci gannaaw mandat yooyu jeex ci la jaga di discuter parce que am na ci koo xam ne àggalewul mandat am keneen ah. ñëw après ñu discuter ci waa ji démissionné na constitutionnel euh, conseil constitutionnel wala déet ñu wax ne conseil constitutionnel ku fa démissionné wul mënoo koo dàq mënoo koo jël bi ñu waxee loolu man leen ah man gisuma décret de xëy na décret bi génn na waaye gisuma décret communiqué laa gis boo xam ne secretaire général de la présidence moo ko signé man leen waaye décret bi xaw ma ndax am na lu ko jiitu mooy waa ji demande président ne na ko yeewu conseil constitutionnel ba président d'accord xam ko doogaa def décret parce que nag bala ñu lay bala ñu lay bala président di del décret képp ku nga xam ne membre bu bees nga daf laa woo daf laa woo donc ci biir woo boo boobu mu lay woo ci nga koy waxee ci ngay acté sa démission fa nga ne woon man sama tante observatoire national de la parité la nekkoon ku ci ne woo la nga exprimer ne fi nga ne woon jóge nga fa donc man je trouve que Ndiaga il fait un excellent travail ay avocat Sonko xam naa leen c'est de brillants avocats xam nga man damay dem di seetaan procès yi am Guinée fi mu nekk procès yi am Guinée xaw ma ndax yéen a ngi koy xool Guinée Conakry nga bàyyi fii di dem ba foofu di seetaan damay dem di seetaan pour xool avocat yi nanu sant yàlla la nga bëgg a wax ñun nanu sant yàlla non dama la bëgg a wax ni la sunuy avocat ñeewuñu sax avocat France wala avocat États-Unis ma gisee ñoom euh, maître Ciré lii ñoom maître Demba Ciré Bathily damay damay kontaan c'est-à-dire que sénégalais alhamdulilah macha allah yàlla daf leen may xel ñu mën a jàng dafa war a wéy nag parce que système éducatif bi mu ngi yàqu waaye yàlla daf ñoo may xel ñooñu boroom xel lañu cest à que boo gisee cour suprême ñëw àtte boo gisee Demba Ciré maître Ciré Ly ni muy dóore ak ni muy daane euh, xam-xam ak pexe ak xel kese la ak politique parce que la matière bu ñuy euh, matière bu ñuy manipuler dafa nekk ci frontière entre politique ak droit ñii dañuy def une prétation politique du droit ñuy def une interprétation juridique de la politique ñaar yi nag bokkul moo tax léeg-léeg ñuy réew dégg mais ñoom attaqué nañu attaqué nañu xam nga pour li moo neex ci démocratie président sax bu jëlee pour décision mën nañ koo attaqué mais c'est que pourquoi mu toog ba ñuy des trois mois. muy soog a jël cette décision quoi loolu nag wax dëgg yàlla xamuma ko. ah loolu nag ma doon moom du ma ko defee noonu. ah waaw looloo suscité réaction su ma doon moom du ko bàyyi noonu wax dëgg yàlla waaw. parce que jeex na depuis cinq ans ou quelques waaw loolu toog ba des trois mois loolu tamit day day nasaxal xel yi. Ah, mais mais mais du côté de l' opposition sànq yaa ngi koy wax euh, dañu former bloc. tuddee seen bopp fit bon ci ci ni ñu koy abrégé quoi. fit moom. fit moom lu baax la. waaye xel moo ko gën. dégg nga fit baax na de waaye xel yi tamit baax na. xel nag lañ leen jaayoon de ci législative yi. ñoom. la mouvance présidentielle opposition bi jaay na ko xel de ci législative euh, bi ñu formé seen intercoalition yi boobu da na a nga Jibril. mbaa leen bettaat fit bi. gis nga Jibril. oui. politik xel la ak stratégie ñun dañu dem ba. président de la république bi ñu gagné 2019 dafa def laisser-aller ña ko doon xalaatal di ko génneel pexe ci laa bokkoon man maa ànd ak moom élection maa daan bind maa daan wax nañ def nii nañ def nii mhm. maa nga daan bind di ko jox ma créé fii benn groupe bu ndaw boo xam ne chaque dimanche dañu koy xelal ci wàllu poli wàllu politique di ko jox dafa pare rek 2019 mu laissé deux am ñu ko amaloon njariñ lool mu soril leen bi mu ko defee wax naa ko ko de nee naa ko gerte jeexul wax naa ko ko de yàlla xam na ko yàlla mii ma tiim nee naa ko jeexul de ñii lu nu amul ci urne yi dinañ ko imposer ci rue bi nii laa ko waxee te noonu la amee ñu ñëw 15 mai avril mu euh, euh, avril mu def gouvernement am mais boum affaire Aliou Sall Petrotim muy enchaîné ñu def au cœur du débat politique le troisième mandat Macky ne duma ci àddu duma ci wax ñu ne ko foog nga wax ci génne nit ñi loolu la ñu dugg déployé ko fu ne ñu jàpp fa deri Sénégal ne Macky am na ku waat sax ne bu Macky deful troisième mandat ma bàyyi politique waat xam ngeen ko waaye du ngeen ko wax yéen xam ngeen kon xaw ma woon ah déedéet xam nga ne Barthélemy la moo waat ne bu Macky deful troisième mandat mu bàyyi politique sama frère Barthélémy. ah Maguette nee nañ loolu la bëggoon sax. moo tax ma ni la fit fit baax na waaye xel ko ëpp njëriñ. xel ko ëpp waaw ah. euh, léegi. Ah. Euh, man li nga xam ne pour man moo am solo. mooy la mooy toujours juridiction yi di fonctionner. ba noppi ñu am confiance ci juge. parce que juge boobu man yàgg naa ko waxam ah. juge boobu. ba ca Ziguinchor. Hmm. la am na ñu bari ñu mel ni moom ñu ko raw sax gis nga ñun dañuy ñun dañuy def recours ba noppi tiit amul benn waa pouvoir bu la mënoon a wax démb ne résu euh, loolu ñu am dinañ ko am. Hmm. waaw magistrat boobu Diagne sama grand boobu dëkk Ziguinchor nu mu tudd. Kandji avocat waaw hmm. Il a parlé en toute indépendance nu mu ko mane noonu la ko ay moromam mane gis nga ñun nguur gi xam naa li ma la wax léeg-léeg dañuy def record ñu toog di lox kon bii tiitoon ngeen mais bien sûr bu CEDEAO bi de tiitu leen moom daa bu ñun bu ñu amoon lu ñu neex dañuy wax foofu ne Sonko warut bokk ci liste yi mu jeex ñun ñun amuñu ndama ah. dégg naa ñuy wax am nañu ndam amuñu ndam. pourquoi ngeen bëgg ngeen du bokk ci kut ko kut ci élection yi. dama ne état moo ne du ci bokk. Sonko moo bañu a dem wuyu ji justice. Ah, ci ñaareel fi yu nga xam ne. man wax naa ko publiquement man pour man su Sonko demoon ñu accusé ko viol gisuma nu ñu koy condamné gisuma ko. Parce que quand même, en matière pénale, le principe, c'est la preuve. boo nee nit daf maa def nii da nga ko fi wone waaye doo nee nit daf ma daf maa def nii ma ubbil ko mu defaat nii ma ubbil ko bunt bi mu ñëwaat ma ubbil ko bunt bi mu ñëwaat ma ubbil ko bunt bi waxuma loolu de man accusé wu ma Sonko bokkuma ci ñu koy accusé xaw ma la fa xew waaye gëm naa ne bu demoon dina difficile ñu établir ak preuve hors de tout doute parce que même en quand il y a un doute c'est au bénéfice du prévenu ou de l'accusé si c'est en matière criminelle mais cour de justice bu CEDEAO war ni mu ni ni mu àttee waa cour de justice dafa xam lu xew fan la woon sagré cœur wala Almadies seen kii bi dafa xam lu xew cour de justice CEDEAO bon wow. je veux dire xam nga radiation Ousmane Sonko des listes électorales sa libération en plus tamit euh, radiation passif surtout radiation wu passif waaw xam nga nag dañ doon wax ñoom ñoo doon tàccu ne nañu dem cour CEDEAO ñu ne cour de CEDEAO àndut ak Sénégal ñoom ñoo ko doon wax léegi nee nañu cour CEDEAO baaxul dégg naa avocat bi naan waaw ñoom xaw ma lan mais y a un problème ça pose même des problèmes diplomatiques mais yéen avant ñuy joxe kii bi on a vu ministre bi ñu dénk justice ak ni mu waxee. waa nga yaakaar ne moom moo commandé juge ya ne. Ah, xaw ma de. juge ya ne Abuja nga yaakaar ne Ismaïla mi ma dégg gis muy bind euh, Ismaïla mi moo leen commandé. wala sama ay sata ah non day sa ça pose des problème diplomatiques. aucune instance aucune partie du peuple aucune section fu mu mën a doon warut. des institutions yoo xam ne ñun ñoo leen reconnaître sous-régional man ngaa discuter décision mais mënuloo dem bay discuter euh, seen autonomie wala la probité des juges yaa fa nekk. c'est que mooy sànq comme li ma waxoon dafa am yenn wax yoo xam boo amee rek des susciter réaction avant même mbir mi di xew mu def wax mu wax yaa a des ministres yu nekk comme say collègues yu wax. donc finalement euh, te te te tamit. passé bi man man bi ma déggee Ismaïla. oui. bi ma ci journaliste bi laajee dama nekk maladresse la. mais loolu tënkul juge commentaire bu nit mën a def tënkul juge juge li ko tënk mooy la loi am ni ñu koy appliquer tënkul juge tënkul juge. nga yaakaar ni juge bi dafa naan waaw Ismaïla wax na ko kon naa ko def mais kon Diagne du waxee ni mu waxi démb. te tamit ci passé bi tamit gis nañu cour justice su CEDEAO wala CEDEAO lépp lu mu wax Sénégal day mel ni pour pour fouler au pied décision bi gis nañu wàllu parrainage wàllu Khalifa Sall wàllu Karim et cetera. je pense que problème bu posé euh, c'est un problème c'est une question d'interprétation des. décision rendue c'est pas les décisions elles-mêmes waaw léeg-léeg ñoom dañuy wax après ki ñu ki ñu waxal nga interpréter nu la arrangé état tamit interprète nu ko te nu ko arrangé est war nañu toll foofu est-ce que war nañu léegi nag xew na fi lu bari bëri na ba ci question rabat d'arrêt bi ñu rabat d'arrêt bi euh, ak yooyu rabat d'arrêt ñu defoon est-ce que dafay suspensif est du suspensif ak yooyu mais li ñu war a retenir mooy mooy la sunu justice bi juge yu indépendant ñu ngi ci. waaw hmm. ah, ñu xam seen liggéey parce que démb juge bi li mu wax ku honnête objectif un spécialiste du droit mënoo ci dindi daal bon comme nee nañu nañu attewaat moom mooy wax moom mooy wax fu ko ñu atte c'est-à-dire que juge bi bu nee nañu attewaat loi texte cons kii yi euh, loi yi ñu leen régir organiser leen dañu wax ne man na koo envoyé fu ne mais da koy envoyé feneen fu mel na bu Ziguinchor départemental fa la ko envoyer fii Dakar mais seen texte moo ko moo ko wax nekk boo annulé rek da nga yóbbu feneen ci texte yi la bu ñu paree interview ma yónnee la ko bu nu paree ni léegi léegi ma yónnee la ko.